jàmm kontaan nañ parce jour boo xoolee ñu ngi woon Cambérène ngoon gi ñu ngi woon Ngor ah def nañ ki euh, si anam yu rafet daal ñëpp kontaan nañ tey ñu ngi ñëw fii di ziar see fii bërëb bi Kuntama waaw ñu ngi taxawax Pape Cissé Pape ana tey lañ ngi wax tey si bërëb bi waaw ah, bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi min asheytaani rajim laa xawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim ñu ngi sant bu baax di julli si sang bu tedd bi Seydina Limaam sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo waral suñu teewaay fii ndax daanaka bërëb bi comme ni nga ko waxee daanaka fii la lépp doore ndax bërëb bi la leeri Seydina Limaam sallallahu alayhi wa sallam nekk lu ëpp junni at doon xaar ana ban wéyjur wu tedd mooy doon wéyjuru Seydina Limaamu yaakaar naa ni euh, sang Seydi bu ñëwee dina ci egg euh, ci gàttal daal fii la mbir mi doore fii la leer yi ne woon ba léegi leer yaa ngi fi ndax yaakaar naa euh, semaine bi ñu génn am na benn reportage bu waa Sénégal def ñëw fii doon waxtaan ak sang bu tedd bi di Baye Abou Lahi ñu wan ñu en direct leer gi jolli fii ci xunta mi pour wax ni leer gaa ngi fi ba léegi. daanaka ku fi ñëw di ziar fa ngay ñëw naafila ñaari ràkk boo naafila sa naafila ba pare euh, étape bi ci des mooy di gis nii dañuy naafila ñaari ràkk daanaka ku fi ñëw di ziar fi ngay tàmbale nga ñëw julli fi ñaari ràkk mu doon sab ziar. waaw bisimilah rahmaani rahim euh, ñu ngi fii ci bërëb bi bërëb bu sell bi xuntum ngor euh, fekk fi sëñ Ahmed lay moom nga xam ne wax dëgg yàlla maîtriser na lool bërëb bi ndax ku fi ñëw moom moo lay orienté moo lay wan naka la nan la dañ koy jébbal micro bi mu wax ñu ana lan moo waral bërëb bi ax lu waral nit ñi di fi ñëw bisimilah sëñ Ahmed. bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi min asheytaan rajim xawla wala xawata illa billah ah ñu jéggalu ci kàddu yi ñuy jël du xam-xam moo tax ñu war a wax wala gën fii xam dara nit ñi mais da fekk ni fu nekk am nañu fa ne bu fi aboo nekkoon incha allah moom ma doon wax wax ji wala aliya mais gannaaw bukki mbaar ma jéem a taxawee taxawaayu mbaar bërëb bi ñu nekk mu ngi nekk almadi fii lañuy wax xuntu ngor xontu mi nag boo egsee dinga gis ni fii la tànk yem ndax boo doxee ba egsi dootoo mën dem ndax géej géej gi moo lay baare kon bu ñu amee extrême est am nañ extrême ouest te ci téere yi jàng nañu yàlla buy wax ci alxuraan bu bari day wax penku di wax sow kon fii ñu ngi ci sow bi gën a sori boo ñëwee fii nag li nga xam ni sa bët moo nekk njëkk a may mooy dangay gis ni fële ci biir géej gi am na fa fu ñaay gi yi daje léew yi di ko ooyee géej gu góor gi ak géej gu jigéen gi moo nekk fële ci pointe des Almadies foofu météo booy déglu météo mun na la grande côte ak la petite côte la grande côte moo jógee fële continuer ba Saint-Louis continuer ba Maroc bii moo dem ba Afrique sud jaar par Mbour kon foofu mooy alxuraan indi ko ci sóotu Rahman maxrajal baxrayni kon boo ñëwee ba foofu fi ñaari géej yi daje. nga topp plage bi di ñëw di nga gis ni fii garab boo fi def day sujjóot xoolee garab yi garab yëpp dañoo sujjóot dem penku kon boo ñëwee di nga gis garab yi sujjóot dem penku kon yàlla moo dogal loolu ci mbir mi kon am nañu garab yi fii sujjóot léegi nag boo ñëwee fii xeer wi dafa am ay fissures yu def boo fii ci ginnaaw mur bi dafa am foofu alif fii nii formé ab laam mu dugg ne defar beneen laam. fu ne asa xeer kon xeer bi moo bind allahu fi ñuy dugg xunt bi nag ci biir dafa am fi ngay duggee mooy mim bi nga dugg ci biir fi ngay sëggee mooy adam deel bi mu am benn mim sa kanam ak beneen deel ci kanam kon xeer bi moo bind allahu muhammad bu ñu xoolee nag ci yenn euh, taarix yi ca arafat ku tedd ki tegoon na tànkam ci benn xeer tànkam màkk ci xeer bi xeer boobu avec l'empire ottoman xeer bi jógee màkk dem Turquie à Istanbul waa Istanbul ñoo yor xeer boobu léegi boobu nag boo xoolee xeer bi c'est le pied gauche moo nekk Istanbul fii nag boo ñëwee di nga gis tànk bi pied droit bi nekk fi ak ni fi toogee kon foofu mooy après li fa nekk nga wàcc si xotu bi nag fa la ñuy ñaanee boo duggee ci biir fekk fa ay fissure muy wane ni ñu doon toppee xeer bi am fa benn partie bu ñuy wax ajatu aswat fa ñuy ñaanee suñuy ñaan kon à fekkee waaw fii nag boo ñëwee dinaa fi di ziar si nag dañuy soppi nga ñëw ànd ak làpp boo laabee ba pare may nga mën a julli nga dem julli ñaari rakk fële soo paree nga wàcc si xottu bi ziar boo ziaree pare nag nga dem toog ca xeer wa soo paree bu la bu ci temps amee nga dem chaise ba moo la wax chaise yoon yoon si yàlla xudar moo nekk fële ci kaw boo fa demee di nga gis ni chaise ba am na ay mandara yu nekk ndax chaise fa mu wéeru turu allahu fa nekk. kon fii yëpp mbirum suñu borom la kon daal loolu laa amoon ci lu may xaw a wax en attendant bu fekkee am na lu ci yokk ñu yokkaat ko ci. donc comme ñu ngi koy gisee nii ñëpp ñu fi ñëw di ziar posture bii la ñuy toogee bu defee ñu daal di ñaan seeni ñaan. noo tudd ak foo bàyyi ko. man maa ngi bàyyi kër ma kër Massar. kër Massar waaw. ana lu waral say tànk fii tey. Ah, xanaa di fi ñëw ay at di gis ay yokkute rek te li may gis fii ba dëgg yàlla moom. doon na loo xamante ne daal ku fi ñaan sa soxla indi fi it loo xamante ne danga nga bëgg yokkute danga ko fi am ndax fii moom li fi nekk moom macha allah. kon daal bërëb bi daal yow gis nga si sa bopp daal saa yoo fi ñaanee mu nangu daal. yàlla gis naa sama bopp moom bi mooy sama troisième fois waaye maa ñaan at yu yëpp yu ma mën fekk ci àdduna dama fii ñëw bu soobee yàlla. mu yor ay xasaay dem di fi jàng. waaw ma bëggoon ko jox micro bi rek mu di ko di xala di xam bëgg xam daal lu waral teewaayam fii ci bërëb bu sell bi. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. balaa leen siyaar bu baax ñëw rek pour ci barke xam ne lu baax mi ngi fépp daal. bi moo nekk nii beneen miim bi fee mooy mu leer kon am nañu miim. adam deel miim deel muy Muhammad waaw kon fii la garab yi si jóoti fii la lépp leere bu fi li amul kenn fi sañ wax ndax dañaan li nga wax ni tegoo ko fenn waaye nag buñ la nee lii lu ngi nii dañaan preuve baa ngi nii kon yàlla yàlla moo tari waaw xam nga muy jëli la pierre noire seet na ci lu gàtt ñu ne xeer yi mu ñuy jóge kaw asamaan mais bu dee loolu moo am lan moo tax Ibrahima yent yàlla Ibrahima dem yàgg fa ba jaba ji fecc ëmb ba ba fecc ba doom ji màgg te ñëwul ñu ne xeer bi mu ngi jóge kaw asamaan kaw asamaan ak suuf si am na benn longueur boo xam ni day am fi ñu ooyee l'impesanteur lu fa jógee du wàcc kon fii wala bu wala bu wàccee day nekk ay astéroïde kon hypothèse boobu dañ ko teg ci suuf maam Ibrahima alayhi salaam bi mu tukkee yàgg tukki bi yàgg fii la ñëwoon et boo duggee suuf di nga gis xeer bi fi ñuy fóonee bo xeer bi ñu koy ewee ajaru aswad mais yeneen xeer yëpp dafa dafa mel luñ dagg xeer yi ay dagg-dagg la def dagg-dagg yëpp lañ def kon dagg-dagg yooyu mooy laa moom mooy pierre yi maam Ibrahima ñëloon yàlla nooyal xeer bi ci loxoom mu jël ay xeer yóbbu màkk tabax ca Kaaba ga donc fii la ñu jëlee la pierre noire kon fi may histoire kaaba gi kaaba gi fii la jóge ñu jël xeer yi yóbbu màkk moo tax xeer yi bind Muhammad buñ ko yàlla bu ko defoon nii nag bindee ko nii kaaba ga nit ñi du ñam ci du ñam ci ci loolu dañuy kon dañu koy jaamu yàlla moo yeewu jaamu moo tax yàlla jël kaaba gi ci turu Muhammad bi dem fay def ko ab carré te boo xoolee lu simple on va comprendre une chose simple al kaabatu poids poids misigam 92 la Mouhamed poids mystique am 92 la kon booy wër Kaaba gi yaa ngi wër Mouhamed sans s'en rendre compte te allahu Mouhamed ci soit ci ci ci Mouhamed lañ ci foofu lañ lañ daje allahu soo ko bindee da lay jox 66 plus 66 mu jox la 132 mais boo bindee Mouhamed dafa am ab sadda kon Mouhamed day am day doon miim adam deel miim miim deel bu nekk miim bu nekk nekk 100 nekk 40 muy 120. xaa bi nekk huit del gi nekk quatre boo ko boole mu mucc la cent trente deux kon fa allahu muhammad daje foofu la yàlla jëli kaabam yóbbu màkk ngeen baal ma àq ku la roy raw samaas way la war na maas waaw pierre noire bi nga xam ni moom la mbokk mi doon expliqué léegi moo nekk nii waaw comme nañ koy defee sa màkka buñ ziaree ba noppi fii aussi fii la ñëw daal di mel ni kuy fóon euh, euh, pierre bi comme ni ko mbokk mi defee nii bërëb bi képp ku fa dugal boppam xam na ni euh, dina fa fekk xet gu neex gu fa nekk. géej gi tey dañoo fekk mu xaw a am ginnax comme ni ko suñu mbokk lébu yi waxe mais bu fekkoon dafa am frais tuuti fii mën nañ fi sàppee julli fi ndax bërëb bu yaatu lay doon waaye géej gi dafa xaw am ndox tey dafa xaw a fees moo waral ndox bi di ñëw ba nii waaye am na ay jamono ñoo xam ne tey fii ñuy egg si tey duñ fi mën a egg ndax ndox mi day gën a bari day gën a ginnax yaay siiwalaam yaay donay xayronaa ibrahim wa barik ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala fil alamin innaka hamidun majid waaye jàllale leen allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala fil alamin innaka hamidun majid oh. yaatu lillah zakiyatu lillah tayyibatu صلوات الله السلام عليك أيها وأنت وبركاته الرحمن الرحيم وبارك لهم وبارك على برحمة الله في الأمر المجرم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق وهاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والأدل سرتك المساكن حق كاذهم العظيم إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا sal wa salam taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salam taslima subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wasalaam wasalaam wasalaam ala mursalin alhamdulillahi rabbil bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil rahmani rahim alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ana lan nga wax tey si sa contentement eh, contente xol yi tooy na fii béréb la boo xam ne béréb bu sell Eh, biram la boo xam ne dara kéemaane la lépp loo xam ne ñaan nga fi fii ci béro bii te eh, nangu na ko bu yàgg yal na yàlla may kattan yal yàlla may wërsëg bu baax yal na yàlla may jàmm jàmm ci Sénégal bañ taxaw bu baax daal di rek mbégte rek lañ yëg quoi fii moom bërëb bu bërëb bu bërëb boo xamante ne nii bërëb bu kéemaane ku xool ni mu bindoo rek nga xam ne fii bërëbu yaa Rasulullah rek moo fi mën a fii moom kontaan naa trop quoi. leen daloo dañ daan nag professeur Kourouma ak délégation bu am solo bu appel jàllee ca lës ci la ñuy ñëw ziar dem yàlla dogal ngeen tombe ak bés bi nga xamee ne ñu dimanche bu jot lii ngeen fekk ñu koy def nii lañu koy defee dimanche bu jot. boobaak léegi mën naa ngeen jàpp ne 2010 ak tey tey ñu ngi koy def. bon dimanche muy taw muy naaj ak lu mën a xew dinañ ko def bu dee ma yemoon ak appel dañ koy def incha allahu rabbi fekk yàlla ñuy bak may bakkeen man nag damay dem yeewi ji samay gan man tamit ni ngeen di yeewee ko ñu nga toog di ma xaar ma bëgg ñun ñëpp au lieu may toog di jël kenn par kenn ngeen dimbali ma ñu àndandoo ñun ñëpp ma yéenee ñetti faatixa ñetti ixlaas ñetti salaatul faatixa fu fi waaye toll nga wóolu ñaan googu ndax conteneur la bu attan lépp ndax sang bi ñu jox alayhi mbooleem suñuy xaaj yooyu àdduna ak àllaaxira buñ ko ci tënkee yàlla dina ko faj ñu doy loo leerug barab bi ñu ñaan ci fi ñu ko toog ñaan ko ndax fii la lépp xew woon fii la lépp wàcc woon kon kenn ku fi jóge yaakaar ne ñaan gi des na ci yow ma xam ne sa ngëm moo des waaye ku fi jóge bu ñu ñaanee ba noppi da nga am yaqin ne li nga fi doon ñaan si sama borom dina la ko defal waaye nag na may faral di ko waxtaane sénégalais dañuy ñaan altine ne bu talaata lay ñëw déedéet yàlla moo moom bésam ak waxtoom ñaan nga ba pare man ak yow man mi ñaan ak yow da ngay dellu sa kër man ak yow ku ne toog wéeru nga déglu yàlla mooy tànn bésam mooy tànn waxtoom mooy tànn ni mu ko indee ci yow waaye bu leen yaakaar ne man la damay ñaan mais bu ñu àggee da ngeen di dem toogi ma dem toogi ñu déglu ko moom kon ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha naka gémmañ gu ne wax ndax xaw kan lañ fiy nangul ci góor ak jigéen na ku ne wax ku ne nag fas sa xol ni nga bëgg yàlla moom mooy fay mooy mooy mooy mooy nangu dégg ku dégg jàmmam soo waxul sax xam na kon nag nañu ànd ak wóolute téy ko noonu tënku ci loolu ngeen may ma ma da yewee ko ndànk dem waaxiru dox waanaa bisimilah bisimilah mbooleem xaajo yi ñu ngi koy tënk ci biir ñaan bi yàlla sama borom man ak yàlla nañ ko Seydina Mawlana Imaam Illaahi Muxtaar Seydil Karim di ñaan sunu borom mu ful ko ci moom ay julli la ko ak mu jox xéwal yal na sama borom doon ñu ko teral doon na sama borom ful ko wàcce ko ci mbooleem njabootam nga àndal muy ak mbooleem njaboot mbooleem soxodaa saalihin yàlla sàmm la faj sunuy xaajo jiital ci Seydina Baye Abdullahi yàlla na ko yàlla jiital ci ñaan gi teg ci waa ahlu bayti Seydina Imaam seen xaaju faj yàlla faj mbooleem ahlullahi ñun ñu fi daje ñëpp kenn ku ci ne góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla yàlla faj sa xaaju ci zaahir baat barke inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima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 nagoo ñaan ak Seydina Ababacar Laye barki ahlu bayti Seydina Limam barki ahlu bayti Seydina Limam barki ajibu daay Allah barki ajibu daay Allah barki ajibu daay Allah barki ajibu daay Allah wa bi hurmati laa ilaaha illallah oh, Muhammadu ñu ngi leen nuyuwaat di ziar bu baax sànq fii lañ ñëwoon eh, ci xunt mi di ziare di ziare bërëb yi jaar jaari sànq bu tedd bi ah macha allah macha allah xol yëpp tooy na ah li ñu fi ñaan daal lu ñu fi ñaan si ci bërëb bi ah yàlla na yàlla na ko nangu ci barke. mag ñu baax ñi fi jaar incha allah ñu ngi ne yéene delluwaat Yoff incha allah.